Touba euh, dem ci centre yu bëri euh, ni ñu koy defee di wër est-ce que euh, laata ñuy tëj bureau yi ndax vote bi daanaka jeex na ni ñu ko waxee sànq ci nasaraan mooy compte à daanaka dañuy compter di jëm ci cëppaandaw ga est-ce que mun nañu xam tey lan la Faty Dieng nemmeeku ci tubaa wala dund ko loo xamante ni xëy na bu vote bi jeexee dina ci delluwaat ci wàllu xalaat wala souvenir lu ko marqué trop tey ci deuxième tour bi. POPUS li ma gën a marqué tey jii daal fii mooy sànq euh, ci université Cheikh Abdoulaye Mbacké comme ni ma ko waxee ci français moo nekk centre bi euh, gën a mag sànq am na benn mandataire ou bu ñëw fii yëkkati dix mille francs jox ko euh, benn président de bureau bi mu ko joxee daf ko jox benn secrétaire secrétaire bi daf ko sànni moom tamit li ma gën a marqué mooy audace place su mandataire bi parce que quand nga ñëw fekk président de bureau toog ak staffam nga jël dix mille francs di ko ko jox waxatuñu nga dugg ci isoloir bi di wax ak euh, di wax ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy votant yi def leen ni def leen naa ba dañ ko mujjee euh, génnee sànq wax naa ko ngoone ngoom dañ ko mujjee génnee si si biti beneen aspect aussi mooy dama gis parlu gi nga xam ne président de bureau yi ànd nañ ko parce que dem nañ fu mel ni bureau de vote numéro ba fa nekk papis li muy de vote maanaam fàttaleku ne Touba euh, département Mbacké amoon na mille cinq cent neuf bulletins nuls ci premier tour yi donc pour éviter loolu dañuy jàngalaale nit ñi naka la ñuy voté nan la bul euh, bul bul taf enveloppe bi defee ko nii defee ko naa si euh, signer ba pare avant nga dugal l'encre bi mu wane seen Pastef wane également que ni dañu bëgg a jàppale askan wi ba lépp jaar yoon parce que tamit xëy fajar teel sa kër bàyyi sa liggéey yëpp ñëw voté ci Mali folo yaakaar naa ni mbir la boo xam ne amul solo Papis Diaw. Mm-hmm. Faty euh, laaj bu mujj mooy est-ce que mun nañoo jàpp par exemple que ne euh, ci wàllu taux de participation euh, ci diwaanu Touba est-ce que mën nañoo jàpp ne d'ores et déjà ndax vote bi daanaka jeex na est-ce que mën nañoo jàpp ne taux de participation bi dafa am évolution bu bu manifeste maanaam bu rëy. Euh, waaw sànq dugg naa ci ay bureau de vote ma laaj président yi parce que nag mënuñu ma woon a jox sànq résultat yi mais ci li ñu ma wax ñoom nee nañu heure bi premier tour yi premier tour yi maanaam euh, bi bi mu amee 19 mars bi passé heure bi li ñu am tey amuñu ko woon 19 mars. Mhm. c'est-à-dire que taux de bi dafa eleve am na ñoo xam ne sax voté wu woon premier tour dañu ñëw voté deuxième tour ñoom loolu lañ nemmee ko parce que li ñu am tey jii nii li ñu am waxtu wi ñu toll nii li ñu am euh, premier tour heure bi euh, xaajuñu woon fa ba fay jegee loolu loolu daal laa jàpp euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy président de bureau yi loolu ñu ëpp ci ñoom loolu la ñu wax Papis mmh. voilà Faty Dieng euh, ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax nga noppalu euh, ba si kanam euh, ndax nga mën ñoo taataanal li gën a bëri ci wàllu résultat nu fàtt ni nag moom mooy priorité bi jamono ji ngir baaxee ko ñi nga xamante ni ñoo ñu taamu di ñu seetaan ci Télé Futurs Médias Mam Fatou on va revenir à toi pour simplement dire que Faty dit avoir été